moom ak taskatu xabaar yi ñu bëre ci sénégalais yi doon xaar njiitu réewum Sénégal ngir mu àddu ci bés bi nga xam ne ni moom la war a amal jongante falum njiitu réew mi waaye loolee mujjuta antu dama ci am euh, mbetteel am ci aussi gàcce parce que président fañ ko doon xaar fëlewul foofu nit ñi li ñu yaakaaroon mooy démb bi nga xamee ne nañu dafay wax ak taskatu xabaar yi mu nekkat élection yi vraiment dinaa xaatim décret ñu def ko nangami euh, ba dat sàngam pour que ñu bañ a génn datu le 2 avril. ngir tànn bésu jongante yi mu fas yéene bàyyi ba waxtaan yi nga xam ne ni moom la sumb jeex waaye njiital GRADEC àndul benn yoon ci nu ñu fas yéene amal yile waxtaan. muy candidat yi nga xam ne tey moom la conseil constitutionnel validé muy ñi nga xam ne maanaam dañu rejeté woon seen dossier parce que seen parrainage baaxul wala indi ñu ay dossiers yu mat li ñuy wax recalé yi. ak vraiment euh, chef religieux et coutumier yeeg ak société civile ak ñëw mais ñun nekkuñu par partie prenante tey ci vraiment tey élection bi. mu jàpp ni euh, bu waxtaan waree am ña nga xam ne ni conseil constitutionnel ñoom la nangul seen candidature ñoom rek la ñu waroon a waxtaanal. élection bi ñi mu concerné mooy ñi nga xam ne conseil constitutionnel tànn na leen ba noppi te ñu nekk fukk ak juróom-ñeent bu fekkee waxtaan mën na am ci biir ñooñu ñoom seen bopp ñu xool. date boo xam ne di dinañ ci juboo te loolu yaakaar naa ne war na mën a nekk gannaaw dat bi après ñu xool yeneen modalité yi njiitu réew mi woote waxtaan ci altine ak talaata bi ñu jëm woo ci ñëpp ngir ñu mën a waxtaane lu jëm ci jongante falum njiitu réew mi